war demee nag ndax ki woote wootem gu rëy gi xam demam bee waraloon liggéey sunu boroom ak rasulillahi ba mu may ko lii moo tax nag réew mi mu xat waaye nag li ko leeral bu doon coppoor dañu ne faar la ndax faar bi mooy leeral yoon bi baliseur bi di baliser waaye ku def loolu mooy maamu kiy toog di maam Cheikh Ibrahima Fall Baabel Mouridine may sa bisee Kumba Faal sóoróor juróom lañu waaye ba ca gën a kawe sa maam la woon maam Cheikh Ibrahima Fall daal yàlla yàlla yokk leeram te tas ci barkeem waaye sang bi ñu ngi lay nuyu sang bi ñu ngi lay ziyaara <laughs> teetal la waaye lii riir xam xaadim rasul la ko waral nga njëkk a génn ñëw Tuuba fekkee màggal bi waaye yow si yàlla boo yaakaar tas waaye ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ko yàlla may ko wér may ko gudd fan ñu ngi lay ñaan faal nga ñaanal fii ñu nekk di poor yàlla def fa jàmm di lay ñaan nga ñaanal senegal yàlla def fa jàmm ñu lay ñaanit faal nga ñaanal Waly Diouf Bodian mii naal yi nga xam ne naal na ko ci port autonome de Dakar yàlla naal yooyu yëpp wàcc foofu ki ko wóolu mooy l'homme du changement systémique di son excellence monsieur Ousmane Sonko ne ko dénk nañ la port bi mu ngi ni toog mu ànd ak ki nga xam ca dëgg moo amee administrateur ba di madame Mariga mi ngi ni toog tur boobu nag yal na yàlla may wér yal na yàlla guddal sa fan loolu moo doon kàddu yi nga xam ni naawoon naa rek naa ko ci sànni. waaw Serigne Bette mi ngi seere Euh, cant gu mu sant dayre bi muy waaw ah, waa koor dañoo am fondation li ñuy wax fondation waaw ah, muy kuréel gu mag goo xam ni dafa ëmb mboolem ñi nga xam ne ñoo ko nekk di ci yëngu waaw ah, te bu mu jëm kanam mu di dimbalante ak di jàppale euh, euh, jàppale boîte bi ngir mu jëm kanam moom mii nag moom lañ ko dégg moo ko jiite waaw <laughs> moo ko jiite waaw waaw waaw mu ngi tudd Mar Mariga Mariga Juma waaw waaw la tudd waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> waaw ñoom ñoom ñoom yi ñuy dox yëpp ñoom ñoo si taxaw ñoom ñoo si taxaw waaw ñoom la si DG di ànd jiital ñu ànd ak ñoom liggéey bi ndax ñoom ñoo jiite ñoo jiite fondation bi waaw waaw waaw waaw waaw sëñ euh, ñoo sëñ Baas waaw waaw waaw kii sëñ Baas la tudd waaw ba Baas. Babacar Baas waaw waaw moom it foofu la ne ànd ak ñoom. na yi jóge ñu soog a egg si léegi waaw tur yi. ah waaw ñoom ñi daal ñoo ñëwal ñoo ñëwal. sëñ Babacar Baas. mu jottali kàddu yi su ko dee ñu. baax a baax waaw di sant bu baax Fall. jërëjëf. soxna soxna. bitéeli ndox. ñaari junniy bitéel ak juróomi téeméer. waaw waaw indi nañ fi it Bodian waaw ànd ak euh, ma soxna soxna si doon wax léegi di directeur fondation bi waaw di di di di di madame Mariga waaw moom it ànd ak ñoom ñi nga xam ne ñëpp rek ñoom ñoo ñoom lañu tànn jiital leen ne leen nañ leen teewal fii fi yow waaw indi fii seenub siyaare waaw indi seen seen barkeelu si bis bi nuy dëgmal ak it teew fii nag siyaare la faal delloo delloo la njukkal te xam ni euh, am na foo jaar ak ñoom loola nag xam nañ ko bu baax a baax te jàpp nañ ko bu baax a baax waaw andi nañ fi nag euh, lii addiya la xam ne moom xaalis la faal waaw waaw ñii ñoo la ko jox. waaw li dañoo ñëw daal di la siyaare si ak di indi seen wàll si la ñoo ko indi faal jox la ko addiya di ko barkeeloo si moom ay ay ay ndab la yoo xam ne dañ ciy defi defi defi mbalit. biñ bi yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp nag. wax sànq ne sëñ moo deminte daa waxoon ni toroxal nañ nit ñu ne lu tax ñu toroxal ko ñu ne daa. waaw waaw def ko ci ginnaaw yéen ñi nga xam ne yéenay seeni kilifa nekkal leen fa te jiite leen cant gi day jaar ci yéen. qui est très dynamique et qui agit beaucoup dans ce sens-là. Donc il faut comprendre un peu que ces gestes-là, ces actes, font partie de politique sociale qui se prolonge et qui est très très euh, à travers l'existence d'une fondation de ce genre. waaw ñun dañuy féddale loo xam ne moo ñu war ndax defe naa bi port di port ba tey saa su màggal jegee bu ñu demalee ma màggal gi euh, port day ñëw ànd ak fondation bi ñëw ziar si sëñ bi ñëw sàkku ay ñaan ci moom ndax liñ ñu jox dafa diis dañ ciy soxla ay ñaan bu ñu paree it aussi fondation bi dugal loxoom ci lépp loo xam ne mooy euh, luy jëm ci màggal bi donc euh, suñu ñëw loolu sens boobu la am fi mu nekk nii. loolu euh, loolu yëpp daanaka ci liggéeyu fondation bi la bokk daanaka poor dafa am politique sociale responsabilité responsabilité sociétale. Euh, boo xam ne moo ñuy permettre ñun ñu créer seen euh, benn fondation euh, fi laa ko fekk mais fondation bi boo foo ko fekk rek nga xam ni dimension sociale bi dañ ko teg ci kanam ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey donc moo tax fondation bi moo ñu gunge fii mais tamit lii benn aspect la mu am yeneen aspect yoo xam ne dimbali les couches les plus défavorisées la comme ni nga ko waxee jërëjëf mhm. Euh, le port autonome de, de, Dakar entend bien accompagner euh, Touba à travers beaucoup de choses. Je ne peux pas le, le disséquer ici. Euh, mais vous, avez déjà, vous voyez déjà qu'on a une fondation qui a un rayon d'action très très varié. Et je pense que nous ne manquerons pas euh, d'avoir euh, beaucoup de, euh, lignes de collaboration avec la ville de Touba. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui sont, qui de tout Donc, euh, bien évidemment, du tic au tac, on ne peut pas vous dire, euh, tout de suite comment. Vraiment, ce serait une, euh, un certain nombre de pistes qu'on peut envisager avec euh, la ville de Touba. Je vous remercie.